ñu bàyyi kenn yàq deru benn sénégalais tegu ko ci yoon mbir bi ngeen gis fan yii ñu bind ko ci Cheikh Oumar Anne ay kàcc la ay sos kese ñoo xam ni ñaar moo tax ñu jóg benn bi bu leen foog ne ay ni ñu jub lañ ñu ci bëri ci ñoom ay njub lañ lañ dañ ñëwoon pour fexe Cheikh Oumar jox leen xaalis ci suuf mu bañ ñu dem ci fournisseurs yi di fa laaj xaalis Cheikh Oumar neen Cheikh Oumar an leen bañ leen lànk leen ñii nag ay njublag lañ ñu daal di mer ni kii dafa juy fonto daneen fexe bi yàqu ak kooku faalewu leen ñu di ko sosol di ko sosol ba bet Babacar Ndiaye mi porté na plainte yàgg def naa depuis 2016 la kon mbir mi yàgg na ma ne benn bi mooy dañu doon liggéey pour leeral nekkete yow ay sàcc lañ jàppaleen boobu beneen bi nag mooy politique bi mooy comme Cheikh ci parti la bokk Cheikh Oumar Anne dafa ànd ak président Macky Sall ñu ne ah léegi nag buñ ko jiiñee sàcc te Macky def koo yéegal jëlee ko kudd jox ko ministère ba far mu yirif sax kudd kon Macky mooy sàcc bu mag bi kon du dëgg mais comme ñoom ñooñu boo leen seetloo ña fa toogoon keroog cérémonie dédicace du livre mooy cérémonie de regroupement des ennemis de Macky Sall cérémonie ñi nga xam ne Macky Sall dina wàcce ñi mu folli leen ñi faalewu leen ñu yore seen tàng xol seen tàng mbaq soxor mer di mettital fu ñu toll di bëgg a dee ñooñu ñoo daje ni tey jii dañuy yàq Macky Sall rek ndax am nañ firnde yu wóor ni benn ku ko jege sàcc la te mënuñ wax benn sàcc bu Cheikh Omar Anne def kon ñoom kay assemblée générale la woon rek pour lu leen neex mooy yàq de rek ki ñu bañ Macky Sall man défendre ma Macky Sall mais ku seetlu seen jëfin mooy am na ku fa dàqoo ci gouvernement bi am na koo xam ne masul koo bëgg am na ñu bëgg a dugg bi kenn faalewu leen ñu am seen i métti am àddina waaye dañu may jàmm nag. yàlla mooy dogal yàlla mooy fal waaye danaa nekk premier ministre ba àddina bi tukki mos nga tuuti rek mu neex nga ne du ma fa jógee ku la fa jëlee nga dee ñii ñu bëgg nañ koo nekk te duñ ko nekk mukk ñii ñu ngi ànd ak benn xale boo xam ne dafa réew te du wax dëgg fan lay def ñoo ñëpp àndandoo groupe boo toog ma ne ñii regroupement tàng xol yi la ñii ñëpp dañu weddi yàlla ndax yàlla mooy dogal te dogalu yàlla bi lañu weddi mooy président Macky boo fi nekk seen xol yi tàng di gaz li ma leen yëgal nag mooy seen fen yi métti na seen nar yi métti na kàcc gi metti na li ñu biri ji li yëpp ay kacc la moo tax ñu neen hé ñëw leen foofu mbax da nekkee benn tey ji ngeen di dee ndax li ngeen wax yomb na sàcc ndënd yomb na waaye foo koy tëggee sàcc ndënd yomb na waaye foo koy tëggee mais xam nga ñoom lu leen nax succès entre guillemets réseaux sociaux yi bind naa commenté El Hadj Diouf bi du sa merde El Hadj Diouf dara man ku ma saaga damay gën a kontaan saaga leen ba doyal man Buur Saalum ku ma saaga faalewu ma la ndaw du ma sa morom du ma sa nawle dama ni ku ma saaga man l'avocat faalewu ma la yow wulul métier avocat ba pare yow ku ma saaga man ancien ministre nekk ministre ba pare ku ma saaga man ancien député nekk député ba pare kon do ay voyu ay bande yu fay ñu jéem a terroriser nit ñi di leen saaga ñoo ma mën a yëngal yëngal leen seen ñooñu may bañ a tudd dama leen wax nag mooy yëngal boobu ñu yëngal di seen bopp di lire ay nombre de message te dañuy fay ay xale ay xale tëj nañ ci benn bureau ñu yore ordinateur tudd Moodu tudd Lamine tudd Jean tudd Pierre dafa ay commentaire te benn lay nekk ñu ne ñëpp dañoo contre ñëpp ànd nañu diw bàyyi bàyyi daf seen bopp Sénégal dafa war a am fulaak fayda yi soskat yi warkat yi saagakat yi amuñ place yéen ñi saaga ci bi di saaga nit ñi saaga leen seen ñooñu ba pare waaye ku leen mën a ko taq waaye day wane ne yéen yéen ngeen àndal kenn du la jox koo xam ne dafa salte ndax saaga dafa salte di saaga nit ñi rek foog ngeen mu ngeen napp nit ñi bu ñu ragal leen ànd ak seen waa jooju patron chef d'orchestre des saagakat bu Sénégal Sénégal gi ay saagakat dañ ko yore saaga leen ba doyal sox leen yoon mu ngi leen di nekk ku fi saagaa di prison ku fenatal fenal nit soxal nit prison bu boobaa nag bu kenn taxaw naan damay dem ci benn dëkk naan dëkk bi nañ ma sauvé damay dem Fuuta waa Fuuta sauvé leen ma damay dem Kaolack ah bu ñu ma jàppee yéen waa Kaolack sauvé leen xam ngeen li ma bëgg a wax doo fen sa fen ba pare fen wu réeréeré ñu bëgg la jàpp ñàpp ci kaso bi nga dem ci benn dëkk ndax sama dëkk bi nañ ma aar